bu mag bi gaay yi jub si na waajal ko jot na sëkk ndax moom yegg si na bisub sëriñ bu mag bi gaay yi si na waajal ko